Wah, junior yow lii da nga def sa àddina sangu dem entraînement ñëw teg sa café di naan loolu da nga defe ne mooy àddina fii nga teg sa sama xol seddu ci lu leer nag laa lay wax jugal nga wuti loo def sa papa mii avant ngay judd moom rek la woon kon boo juddee moom mën na fee nekk way jur wu di ñaan bu ba wante am na ñaa xam ne day laa fekk si yoon wu baax dévier la dugal la si yoon wu bon te yarew ma la noonu xam ne xale yi amatuñu benn éducation waaye nooñu def ndax njabootu léegi si njabootu kanaara lañ dañuy jiitu rek ñu topp ci seen ginnaaw sur la base d'une permission qu'on t'a accordée je sais pas ce qui se passe sa yee sax woo na ma di ma laaj lan moo la téye. may keroog dama génn. te sant ak sama benn xarit. Euh, mu expliqué ma benn business. bi ma tëddee ba xalaat ci xawoon na ma intéressé depuis boobu ba léegi. loolu moom ma xawoon téye. version yi nga joxe. am na bu xamante ne bi du dëkk. yaa ngi dëkk bi rek lijjanti problème yi rek. koñ moom lu xew ñu ne wool imam wool imam. ma ne tey suñu kër laa toog dégg nga xutba mais bi nga ne xayu wanaas te jël julli. bàyyi di yàq ay. dafa nga nekkoon sax toog sa kër dégg xutba bi ngay daane itaqulaa ki mu ngi fekk buntu jumaa ji. demal nga liggéey te bàyyi lii nga nekk nii amul benn njariñ. bu fekkoon bon la rek fa la mu jógee la gënee fa la ëppee. ah ba tax mu yow loolu war a tax nga yàq sa liggéey fële ci oro xale bu jigéen boo xamante ne bii yow xamoo ndeyam xamoo baayam xamoo fu mu juddoo. ah kay jox na ma adresse muy tegtal bu leer nañ mi ngi nii. ci Binta de laa jëm grand frère xëy buñ may woo. ordre yaay lan la woon. surveillance su kër gi sa loxo laa ko teg bugguma sàmba dugg bugguma demba dugg dugg. kër day am kilifa te kilifa gi yow la. bu ñibbi si mukk di am dara dara dara dara dara lu ma naqari. ya, yaay c'est vrai mais man mënu ma fi toog comme ça. yow. ko mos a teg ci alal ji ma yor. gis nga lool nga wax. ci laa nekk. ndax dundewu ma loo xamante ni ñàkk jàmbur la sama ñàkk la. man lenn nga may wax may ay waxu héritage. borom animaux dem na léegi loo bëggee man samay bâche laay lijjanti. Bella. waaw ma gis xamatuma ko de. na fu mu dugal de xale bi nopp ko de. problème yi ci boppam bari na bari boo xam ne mënu ko wax doomu aadama ñu ko ay secret nag dencal ko ko te ñaanuñu yàlla mukk ci kaw suuf secret boobu di siit. monsieur Mbaye maa ngi ak bomb boo xamante ni su ma ko dóoree fii dëkk bi day wàcc de. xam nga ma man duma ko ñu chantage